jihaat mm-hmm. ñu ngi ci jihaat mm-hmm. ne na wala yamnahu du tere du ko tere ñu jaamuloo ko mm-hmm. da nga wax bi sur sursoño bi nga xam ne yéefar la du tere ñu jaamuloo ko xam lun xëmb boo xam ne bi muslimin mu ngi tukkee ci jullit bu xëmbee doom doom ji baa ji jullit la buñ ko jàppee moom yëfër bi du tee ñu jaamuloo ko maanaam def ko takk moom julit bi da nga wax de daf ko takk mm-hmm. te boobu mu nga woon te suufu yëfër ya mm-hmm. loolu wax ko xam ne dafa tuub te mm-hmm. suufu yëfër ya yi jàpp ko fekk mu ngi ëmb mhm. wala mu tuub mhm. te jëkkëram mhm. nekkoon yëfër jàpp ko fekk mu ngi ëmb fekk jëkkër jàpp ko ëmbal njëkk muy tuub kon doom ji julli la xam nga selon ko te moom nag ñu def ko moom dañ koy jàngaloo wala yem na du ko xaayee du ko tere xam ëmb te mu lu jullit ne na wa ruqa def na jaamuloo xëmb ba in xamalat nde mën a bii moom bi ko furin ci yëfa dégg nga ca baay mu doog tuub comme ñetti yi nga jàngul rek bii ci la bokk ci la bokk nee na wala tey waj war na bima te mm-hmm. sartawante woon mm-hmm. nga xam ne fata ubbi na laa ñoon ñu ci lool baado um ñenn ci ñoom mm-hmm. di ko war a matal de wa war na alu waaw matal bi ma ci sart ba nga xam ne sart ba nga xam ne fataha ubbi na ñoom la laa ñi ñu bii ci sart boobu de ba du nañ ci ñoom mooy faalu fataha bi sax kon dañ ko war a matal moo xam tata ja mhm. moo xam dëkk ba la mhm. sàrte yi waxante ak ñoom ba tax ñu ubbi ko dañ mhm. ko matal bu ko defee fii ko lër moo tax wa war na alu faa matal bi ma la nga sàrte ba nga xam ne fata ubbi na baa dum leen nit ñoom dinañ ñoom ñu bii di sàrte boobu la dañ ko matal ba te wa war nañ matal mm-hmm. bi amaanil imaam yi ca matal ci kóllëre imaam ba mm-hmm. ku imaam may kóllëre donc mm-hmm. kenn du la laal nañ ko matal mutlaqan nag mutlaqan nag moo xam ci ci réew réew mu may nekk nag moo xam réew jullit ñi la moo xam fu mu nekk gannaaw imaam moo ko may kóllëre moom yëfër bi da ko ci réew mi di jaxasoo ñun di jaay ak jënd kenn du laal nañ topp saatu topp sart mm. mm-hmm. naka noonu mm-hmm. mu ne kal mu baari si comme mm-hmm. jullit boo xam ne dafay liwaatoo mm. ci jihaat maa xir nii mm. ànd ak nawle boo xam ne yéefar la sart ba yi waxante woon dañ ko matal bu kenn dimbale kenn nañ bàyyi ñun ñaar rek ñu d'accord ci dañ ko matal ah. dégg nga wax bi mhm. bu kenn dimbale kenn mhm. nañu bàyyi ñun ñaar mhm. ku mën sa morom def def def ci kawam bu kenn dimbale kenn dañ bàyyi noonu de mu ne kon ah kal baar si ni ko aji li waxtu maa xir yi nee na bu dee nga xam ne yéefar bi jullit bi ko bëgg a lor beneen yéefar ñëw dimbale ko ñu rey ñoom ñëpp rey wa in ueena dem dimbaleef na yéefar ba mm. bi is nii ci ndimbalam mm. ndigalam kay ndigalam mm. xuta reef maaw ànd ak moom ah. kon dañu rey ka ñuy dimbale ak koy dimbale mm-hmm. xuta maaw xam nga jaa dugal dañu àgg tënk commencé xeex déedéet dañu sàppe dañu sàppe dañu sàppe janoo mm-hmm. léegi bu sàppee janoo nag mm-hmm. ñu diwal mhm. ak diw nañ dem diwal ak diw nañ dem maanaam jullit ñeen ci ñeenti génn mhm. yi fa ñeenti génn ci mhm. ñu ne bu kenn dimbal kenn nag jullit bi ak kim dajeel ñoom ñaar bu ci kenn dimbal kenn léegi nag ñeenti ñooñu nag ñeenti ñooñu ku ci gañe sa morom na yow nga dem dimbal sa mbokk sa sa sa mbokk sa mbokk ñoom ñoom dong ñoo ko sañ nag waaye ñi ci làng gi ñoom kenn sañ ci génn fii ci làng gi dem fekk di dimbale keneen loolu la jàngal ñu ko jàng léegi nag mhm. ramu ne wali man xaraja mhm. ñeel na ku génn mhm. fi jamaatin ci mbooloo li muy laa ñeel mbooloo mu mel ni moom isa fadaqa ne par na mu min xirni yii ca nooleem bu mooy gañe na ko ñeel na ko al ihanatu dimbale ku mu mën a dimbale moom gannaaw dañu waxoon ne dina diw ak diw daje benn julit ak benn yéefar boobu man ñeent wala juróom wala fukk jullit ñi ku ci gañee sa sa waay hmm. gis ne yëfar bële mu ngi lootal jullit bële hmm. dagan na dem jàppale ko ngi lootal yëfar bi hmm. loolu la wax wala man xaraja dagan na ko génn fi jamaatin ci mbooloo li mi laa ñeel kemam isa faraxa ne pare na min xirnihi ca nawleem ba al ianatu dimbale lépp lu mu jàngale nag xam ne dafa amoon lépp lu mu jàngale dafa amoon xam lu muy jàngale hmm. maanaam euh, xare badar hmm. amoon na fa hmm. bañ desee ci xare badar walid bun xotbatu ak xotbatu bun rabiatu saybatu bun rabia ñoom ñett ñu génnoon Sidna Aliyu mm-hmm. mm-hmm. ak Hamsatu mm-hmm. dégg nga ak Ubaydu bun Haaris bu Abdul Mutalib ñu gën ci jullit ñi loolu woon Sidna Aliyu ak Hamsatu ak Ubaydu bun Haaris bu Abdul Mutalib ñu bokk ci jullit ñi te teg Walid bun Utbatu Utbatu mu Rabiya Saybatu mu Rabiya Sidna Aliyu moom moo reyoon xot mm-hmm. batu Hamza mm-hmm. rey xotoy batu mm-hmm. subhanallah dégg nga walid bun xot batu xot batu bun rabia say batu bun rabia dégg nga xot batu bun rabia léegi Hamza moo rey xotbatu bu Rabia dégg nga woon xare Badar ñetti fe woon mooy Seydina Aliyu ak Hamsatu ak Xubaydatu bu Naaris léegi nag Walid bu na xotbatu génn moom itamit Walid bu na xotbatu ak xotbatu bu Rabia ak sabatu mu Rabia Seydaan yu rey Walid mhm. bun Utba ci mhm. naa di mhm. yaa ngi dégg bu baax Seydaan moo rey Walid bun Utba Hamza rey Utba bun Rabia Saybatu bun Rabia nag gañ xobay dut dagg tànk ba Seydaan Ali ak Hamza xekk ko dimbale ko ñu rey ko Saybatu bun Rabia moo dóor xobay dut dagg tànk ba fekk boobu Seydaan Ali ne wali bun xotbatu Hamza rey na xotbatu bun rabia waaye saybatu nag moom bun rabia gañe xobay jotu gañe ko su daan di dem fekki ko ak Hamzatu jàppale ko moo tax ma ne ko wali man xaraja fi jamaatin li misliha isa min qirnihi al ihanatu dimbali dégg nga nee na wu uj wu uj biru wu bu ubbiloo dañ leen forcé ñoom ñëpp nag ñoom yëfëre mm-hmm. dina forcé leen xalaa xukmi man nasalu mm-hmm. ci àtteem ka nga xam ne wàcc nañu mooy d'accord nañu xalaa mm-hmm. xukmi ci àtteem waaye in kaan dim nekk na kookale di àtte adalan aji maandu te waa dafa mu xam almalaata mu xam maslaha dégg nga wax mu xam maslaha kuñ ne moo leen di bu pare ñu d'accord mm-hmm. buñ bañee ñu forcé mm-hmm. leen ba tey dafa am lu muy de mm-hmm. ci yéefar yi bu ne Quraysh ta ci Madina mën na war a ay yowool lañu xoon xool yonent bi bi demee ci xarfatu axsaab ñu ko wax xarfatu xandax nga xam ne mboolem yahood yi dañoo ànd ak waa mu Mukarrama ñëw di xeex yonent bi yonent bi gas ay pax yu mag mu wér Madina xamuñ nu ñuy def yàlla yàlla yàlla yebal ngelaw ak sedd mu bëgg leen xalak seen xayma yi daanu seen safara yi fay amatuñu lekk amuñu lu naan ñu daw ñibbi waa Màkka bàyyi fa waa Medina yowóot yi bu ñu Quraysh ta bokk la Quraysh Quraysh mu nekk Màkka Quraysh ta ay yowóot lañu léegi nag ñoom bañ leen jekkoo ñu dagal nañ ko ñu wax Saadu mu àcc leen Saadu bu nu maas te fekk ñoom ba ñu fettante ñëw yooyu dañoo fett fett gu laal saadu gaañ ko loolu na naqadi saadu nag yéen bi ne kon nag saadu ñoom ñeneen yow lañ lañ nag d'accord nga àtte leen léegi nag kon looy àtte mu ne nañ rey mag ñi jàpp gune yi ak jigéen ñi yéen bi ne ko sa bii dee moo nekk aras wala yàlla àtte ci aras yéen bi wax Seydina Aliyu ak Huzayfatu alayhimaa ñu gas pax ci marché Médina di rey juróom benn téeméeri nit ñu ne juróom ñaar téeméeri nit dañ reyandoo juróom ñaar téeméeri nit di ren di yonent bi ne aywa dolli leen de nañ jeex de ñuy ren di di sànni ci pax mi maanaam nañ jeex de borom bi naan fa sarit bi man xalfahum fa sarit bi man xalfahum na nga dànganloo ñu ci seen gannaaw maanaam ku ko dégg bu mu ko defati ku fekkee bu mu ko defati mm-hmm. na rey bi métti mm-hmm. na rey bi métti bokk ku ko bu ko defati. Mm-hmm. ku ko fekkee bu ko defati. Mm-hmm. moo tax maslaa maslaa ci islaam mm-hmm. du rek raay gannaaw. xam nga li maslaa ci islam. mooy teg dëgg. teg dëgg rek mooy maslaa bi. parce que buñ tegul dëgg rek. am ñu yàqule am ñu lor. ki yàlla yu nit ñun. lim bari bari yërmande. mu ne xaliyu rendil mu rendil sànni ci kàmb gi. rendil sànni ci pax mi loolu di dégg nga. moo tax mu ne kon nag. ujbuloo foofu sax ne leen. alaa kii man nasaloo. xatte ku nga xam ne wàcc nañu alaa kii mii. ñu kan adlan wa arafa maslaata. ñoom commande la. te xam nag maslaa. waaye laa bu la amoon nag. nasala day xool imaamu. léegi imaam ba mooy kilifa ga. mooy xool lu ñuy defee dégg nga.